soxna jaara euh, soxna jaara bu maam Cheikh Yérim lañ ma gën a xamee defe naa ne Sénégal mais sama tur dëgg mu ngi nekk nday Jaara Juuf dañu dajale jigéen ñi dajale xale yi ak seen borom kër yi pour jàppale leen parce que xam nañ ne weeru koor weeru koor euh, jigéen ñi dañuy soxla euh, togg lu gën a bëri dañuy soxla ndogu ndogu bu baax te xam nañ tamit sunu moroomu jigéen ñi li ñuy daj ci kër yi ñoo ngi góorgóorlu ñoo ngi dem di wut dépense bi sax bu matul ñu mottali euh, togg ndax lan war seen euh, euh, bonooru borom kër wër seen sàmb seeni doom jàppaleel seeni doom donc loolu moo tax lii daf ñoo war ñu jël ko ànd ci ak ONG Al Ataa bi nga xamante ni day dimbali ñëpp si biir Sénégal et en Afrique à travers la fondation Soxna Jaara bu maam Cheikh Yérim Ndoumban Seck ñu woo leen pour jàppale leen ndax ñun li ñuy wax mooy suñu devise mooy servir Dieu à travers les hommes te servir à travers les hommes boo ko waxee rek mooy da ngay laxasaayu dangay jàppale doomu aadama te ñu ñëkk a visé mooy sunu moroomu jigéen ñi ndaxte xam nañ lu ñu daj ci ci mhm. li ñuy daj ci biir kër yi. ah jafe-jafe yi bëri na ndax euh, defe naa ni jigéen moom bu ñuy wax moom mooy le le le le poumon d'une maison euh, defe naa ni boo xiifee sax da ngay wax yaay damaa xiif papa damaa xiif c'est rare dans notre culture ñu koy wax yaay damaa xiif ngay wax. Euh, man jigéen laa xam naa jigéen lan lay vivre si biir kër xam naa jigéen lan moo ko war si biir kër ñun lu ñu lu ñu war si biir kër dafa bëri ndaxte euh, bu lekk amul sax defe naa ne gan bu ñëwee sax danaa ani ani ani ani ku jigéen ki bu ñu toggul sax dañuy wax ne ani ani ani soxnaam donc li leen war dafa bëri te nag a ah, euh, Sénégal metti na situation yenn saa yi metti na metti bu nga xamante ne jigéen ñi dinañ daj lu ne. dinañ def lu ne pour dundal seeni seeni njaboot euh, di maa ngi leen di félicité bu baax euh, di leen wax nañ góor euh, lu muñ lu lu metti yàggul seeni doom bu ñu màggee rek ñu jëriñu ba pare tamit ñu laxasaayu liggéey ñu laxasaayu liggéey def ay genre ONG def ay GIE comme ni ma leen gisee ñu koy defee macha allah jigéenu Sénégal dañu am jom dañuy jàppale seeni borom kër dañuy def lépp lu ñu war a def lii day continuer day continuer si weeru koor bi ndaxte avant weeru koor bi sax dañ ko doon def ndax avant weeru koor bi comme li ñuy wax euh, affaire dimbali nit euh, ku ma xam rek xam ne dafa yàgg si man euh, bañ naa ko ba comme j'ai l'habitude de dire ça amoon mon équipe 80 pour cent sama salaire laa jël alloué ko ci don ci action sociale maa ko décidel sama bopp ndax lan pour jàppale sama moroomu jigéen ñi peut-être yàlla baaxeel na ma loo xamante ne peut-être am na ñeneen ñoo xamante ne yàlla baaxewu leen ko donc lu ñuy def mooy rek solidarité jàppalante dimbalante dañ koy def euh, korité dañ koy def tabaski tabaski daaw def nañ ko ñoo ngi ci jumaa yi ñoo ngi ci forage yi ñoo ngi ci jëndal xale yi ay yére ñoo ngi ci fayal étudiants yi ay euh, euh, seeni kër ndax defe naa ne étudiant wu Bambey yi sax am na ñu xam te ne regroupé wu di leen fayal kër pour fu ñuy dëkk ndax xam naa ne étudiant man nekkoon naa étudiante donc vie étudiant dafa metti ñoo ngi si jàppale nit ñi ci seen santé ñoo ngi si lépp si li nga xamante ne suñu doole moom la ñu may pour l'instant lu ñu bëgg rek mooy affaire yi gën a yaatu euh, ñu gën a mën a jàppale nit ñi. dëkk bi metti na defe naa ne état sénégalais euh, état sénégal moo ngi góorgóorlu les institutions ñoom ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu dañu nekk ci conjoncture mondiale bu nga xamante ne fépp a metti man mii di wax yenn saa yi dinaa nekk si yeneen bit yeneen réew yi ndaxte dinaa voyager lu bëri si sama liggéey damay voyager lu bëri si Afrique bi. damay voyager aussi à l'international donc euh, inflation bi am fépp la ndax Covid bi jaar fii guerre Ukraine bi Russie euh, bi jaar fii dafa tax euh, prix yokk donc loolu tamit na ko nit ñi xam mais état Sénégal tamit dañuy wax ni lu baax du doy nañu gën a góorgóorlu nañu gën a jàppale nit ñi nañu gën a jege population bi avec des actions concrètes des actions concrètes wut ay ñoo xamante ni dañuy poser des actions concrètes pas dimbali nit parce que élection dafa ñëw rek après nga fàtte ko loolu euh, du loolu mooy dimbali nit dimbali nit mooy da nga koy dimbali tout le temps fi mu ko soxlawee ak poser des projets structurants yoo xamante ne nit bi dina si gis boppam nit bi dina mën a nàppal boppam ñoo ngi ci nag mais dañ leen si gën a ñaax dañ leen di gën a wax ñu entouré avec des gens yu nga xamante ni aussi tamit dañuy poser des actions yu nga xamante ni population bi dinañ ci gis seen bopp waaw Sénégal am nañ tuuti jàmm te loolu mooy sunu marque Sénégal teranga boo demee à l'extérieur sax dañuy wax pays de la teranga man damay woo jeunesse bi damay woo Sénégal bi yëpp ni leen sunu jàmm bi bi ñu am nañ ko jàppal sunu bopp ba mu dëgër parce que damay voyager lu bari ci Afrique bi à travers euh, sama liggéey dëkk yi amul jàmm du ñu tal sax lekk boo talul boo amul jàmm doo lekk boo talul boo amul jàmm doo solu boo amul jàmm doo faju boo amul jàmm doo tax sax def projet ba muy ba muy kii dëkk yi nga xamante ni dañoo amoon violence violence post électorale wala violence bi nga xamante ni ay guerre ak yooyu boo demee foofu li ñuy njëkk a wax mooy dañ ko réccu li ñuy njëkk wax mooy bu ñu sañoon lii duñ ko mës a def léegi nag dañuy naan y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas c'est deux personnes qui ne parlent pas nit ñi dañoo war a toog di waxtaan ñu sàmb suñuy euh, principe sàmb suñuy suñuy principe ak suñuy valeur suñuy valeur religieuse et quand on dit religieuse religieuse mooy catholique mooy mus valeur musulmane ñu bokk def symbiose cohésion comme li may yàgg wax cohésion ñun ñëpp ñu àndandoo le Sénégal benn bopp kenn du ko xaar ñaar bu ñu nangu kenn di ñu ko xalal ñaar bu ñu nangu kenn di ñu pousser ci violence violence mooy li nga xamante ne moo yées si réew ñi ñi nag dañuy investir euh, l'international da ñëw di investir mais boo seetloo sax pays bu am violence kenn du fa investir pays bu am violence kenn du fa indi dara donc ñun li ñuy njëkk a def mooy sàmb suñuy valeur mooy s'enraciner après nag ñu ouvrir s'ouvrir comme Léopold Sédar Senghor nu mu ko doon waxee on s'enracine et puis on s'ouvre sàmb suñu Sénégal ba pare nag ouvrir notre euh, notre pays aux, aux, aux, aux institutions internationales aux multinationales internationales parce que Sénégal mënuñu ko euh, construire ba pare tëju gisuñu benn réew construire ba pare tëju da ngay ouvrir mais da ngay fonk tamit say valeur fonk ñu nga nekkal ba pare nag liggéeyal Sénégal. nañu gën a topp defe naa ni euh, euh, ndaw ñi ñoo ngi topp sax sunu guide religieux yi parce que c'est très important lu fi sunu maam yi bàyyi woon ah mooy sunuy valeur mooy sunu doole Sénégal boo doon seetlu bu xawee tàng sax day day da ngay gis ni day jékki-jékki rek sedd ndax lan ndax ñu dañu amoon ay valeur des valeurs yoo xamante ni fonk sunuy tarixa fonk sunu jàngu l'église l'église catholique ñoom ñëpp lay wax parce que la valeur Euh, religieuse ce n'est pas que la valeur musulmane c'est aussi la valeur chrétienne aussi fonk leen fonk sunu tarixa yi loo jàng-jàng-jàng da ngay fonk say kilifa diine ndaxte kilifa diine dafa am importance ah ku gis soxna jaara ku ma xam ci internet bi ku ma xam ci lépp di nga xam ni samay kilifa diine ëttu këru diine yëpp nag laa fonk ñooñu ñooy sama force ñoom ñooy tax nga mën a avancer nga mën a poser des actes parce que xale dafa am fu mu war a wéeru xale mënul construire dara te du ci ci ci ci fu am importance